mi ngi noon boo yi bàyyi xel SBT am nañu mbégte ak kontaan dañoo fi nga xam si moom mooy Kër Moussar seet fi koo xam si ni macha allah miin ngeen ko baax a baax ndax kenn mënutul wax làmb génn ko si muy sunu grand Modou Boy macha allah bëree ba yàlla def mu bàyyi bëree waaye mu yor écurie écurie lu jëf soog a nekk yor fa ay xale ay champion yoo xam ne kenn mënutul wax làmb génn leen ci macha allah marqué na empreinte am ci arène bi waaye na empreinte am ci li nga xam si ne nii moom mooy euh, tàggat bi nga xam ne mi ngi koy tàggat ay xale macha allah donc ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu ñëw ci waxtaan bi président ñu ngi lay nuyu. Eh, Mass maa lay ziare vraiment jox na ma nañ la di nuyu wa monde lamb di ko dalee sama équipe di waa nuyu sama mbokk yu fa nekk sama mbokk dirigeant yi di nuyu waa Kër Massar yëpp mais di ñaanal waa làmb yëpp jàmm di ñaanal réew mi jàmm encore waaw. boobu nag ki koy tàmbalee rek mooy actuel yaakaar naa président bi mu toogee bu njëkk bi muy sept ans. toogaat fi cinq ans yaakaar naa booba léegi waa làmb topp ci daw pour mu recevoir leen donc mu recevoir leen ci altine bi ñu génn euh, tey noo jàngatee lool waaw euh, maa ngi ciy sant yàlla bu baax ñu ngi ciy yàlla bu baax a baax a baax parce que tamit ay sportif yu dajaloo di def ci yëngu ci benn sport ba kilifa réew mi recevoir leen loolu yaakaar naa ñëpp a koy ñaan parce que foofu mooy fawxa lépp maanaam o sommet. mënoon nañu recevoir boole ñu ak ministre des sports wala mu boole ñu ak kenn si ay nitam mais biir pale la ñu recevoir loolu nag ñaara ko sabab amal nañ am nañ ci réew mi njariñ wala boog am nañ kàddu ci bi ci topp mooy li ñuy def président mi ngi ci bàyyi xel loolu nag la ñëpp war a xam ndax tey jii ay basketteurs ñu ngi fi ñaan audience ñu may leen ko. kenn waxut joueurs yi jël nañ fi coupe ñu may leen audience may leen xaalis ñëpp kontaan chaque jour mu recevoir soit ay politiciens mbala mu recevoir ay liggéeykat mu wala mu recevoir ay sportif bii paas nag yàlla dafa def mu recevoir monde de la lutte monde de la lutte bu ñu ko waxee wax nañu écrit wax nañu yéen ñi di caméra ci wàllu làmb wàllu sport wax nañu CNG wax nañu arbitre wax nañu ancien couloir wax nañu waykat wax nañu lépp luy yëngu ci làmb nit nag def dara ñëpp na gonga moom du am Sénégal du am ci àddina ba ilaa yawmi diin loolu du am mais man dama koy rafet rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax doole président Macky Sall yàlla na ko yàlla defal jàmm parce que Sénégal fi mu toll nii ñëpp ay ragal lañu ku wax rek ñu ne voilà dañ naa jox xaalis dañ laa def nag président ku mu war rek da ngaa jàmbaare président du ma ko tekkul dara alhamdulilah compal nañu waaye lim ñu compal mën nañu ko liggéey ci benn fan bi ñu demit waxuñu dañuy compal bu ñu ñëwee am na ñoo xamante ni nag ñoom lam lañ compal la ñuy liggéey weer te duñ ko gis wala duñ am am na ñoo xam ne keroog dañu mës a téye cent mille francs global te ñu ngi sonn ci làmb kon dañ ciy sant yàlla man vraiment ba ma demee dama dugg déglu discours ba mu jeex takk mais man bu dul woon dara damay dem parce que un président de la république toll ni Macky Sall te ñëpp a bëgg a toog ak moom képp ku ne bëggumaa toog moom bëgg ngaa toog bëgg toog fee mu toog kon bu yàlla defee ñun waa làmb ñu góorgóorlu ba tey popularité bi ñu am ci réew mi président ne def ñuy recevoir na ko wàcc cinquante ans mais ndaari lañ kon nañ nangu ne ñun ay ndaari lañ te nag moom Macky Sall waa làmb bu ñu xalaatee waxal seen yàlla waxal te yàlla tax lim defal làmb làmb yàgg na koo jooy parce que man 2004 demoon naa pale Sall toog ak président Ablaye Wade amaan nga sax toog ak président Macky Sall. Ablaye Wade la mu ñu waxoon tegal ñu maquette Yékini dama bàyyi ma fen bi ñu génnee maa ngi topp ci ginnaaw mais dama ne ah man daal lii moom ñëw rek ñu teg maket gaaw na de man de gëwuma ko xanaa ma gis ko maa ngi topp ci ginnaaw Yékini dégg wax loolu c'est en 2004 ñu ko defoon Saalu Brino booba mbooloo mi yëpp ñëwuñu woon te bañ fa jógee lañ jox indi woon na coow comme nii rek. mbërum làmb nag ñun waa làmb ñoo bàyyee suñu bopp ba golo gu jóge fee rek ñëw wax ñu lu ñu neex ñun suñu biir ñu am ay quelques dof yoo xamante ne nii wax fa dëgg yàlla làmmañ bu neex rek moo tax ñu ñi xam leen chaque fois dañuy génn di wax ay ay njombe rek mais ku toogul ay Macky Sall bëgg nga toog ak ku xamante ni bëgg naa toog fee Macky Sall toog kon ñu toog dañuy sant yàlla. léegi léegi may ñëw mooy sababu tey bi ngeen dem yéen en tant que président écurie yaakaar naa yéen ak CNG yéen ñi ngànk yéen ñi nga xam yéen a lamb làmb yaakaar naa waxtaan ngeen ba concerté wu ne buñ demee dañ waxtaan ak président Macky Sall ginnaaw bi ñu ko dégloo dañ ko wax ñun suñ suñ suñ programme ak liñ bëgg ci yéen lan ngeen yóbbu woon comme loo xam ne bëggoon ngeen ko waaw damay gërëm encore une fois suñu président Cheikh Tidiane Niang président ARES mooy association école de lit ak écurie yëpp nga Sénégal pour ñu wane la man démb bi ñu leen di président rek laa xam ne Sénégal président moom li ko gënoon a intéressé mooy dajale mbooloo mi te loolu mooy rôle am politicien la ñun tamit li ñu gënoon a intéressé mooy ñu wax suñu doléance léegi loolu man dialogue laa ko jàppe entre président ak ay lutteurs am ndax ke ku mu neex ak ku mu naqari fii ba keroog 2024 di jot fii ba neuf mois xaw ma waaw waaw waaw kon nag bu woowee bu woowee xam nga li moo opposition yi sax am nañu si dem di kaas maanaam am na nit ñoo xamante ne nii yàlla àjjana sax bu leen fa dugalee ñu àjjana si yàlla dugal neexu leen maanaam ay nit ñoo xamante ne nii seen xol du neex mukk ñooñu nag intéressé wuñu nit ki da nga def li la intéressé ñun li ñu intéressé woon mooy président Macky Sall recevoir na waa làmb ahlu làmb ahlu làmb wu ji nañ ko dem nañu li mu ñu wax satisfaire nañu képp comme mu satisfaire jàpp naa ne war woon dem parce que li ñu gën a intéressé mooy làmb ji moom mu xeex pour sponsor yi ñëwaat donte nag du far force mais nationaux yi nga xamante ne nii fii lañ planté wu Sénégal dëkk Sénégal ñooñu bu président bi waxee ak ñoom seen ay directeur ne leen kat ndaw ñu ne ci làmb ji dafa bëri làmb ngay ñëw ñu fay la cent mille jox la avance cinquante mille franc mel sa jët trois cent mille kon loolu yoon lañu organiser bëgg-bëgg ci dugal nit ki waaye du xaalis boo ko ci xaalis fekkee nag mu soo ko jël man nag mbir yëpp laay am na nag ay nit ñoo xaay ni lañ bëggoon a dégg dégguñu ko waaye ñu xam ne kenn mun a wax li nekk ci xolu nit ñëpp ndax nit saa yu waxee ba génn yow di ne kii de fi mu taxaw moo taxaw dinaa ko waxee nii waaye moom lan la ca xelam rek la mën a wax man tey billetterie bi am ci làmb yi neexul promoteur yi neexul mbëri neexul waa làmb neexul supporters yi pour ñu saafarako ko yi jàmbat nañ ko fa Gris Bordeaux wax na ko mais am na loo xam liggéey li Gris wax moo leen gënal li Cheikh Tidiane Niang wax man li Cheikh Tidiane Niang wax man dama intéressé muy président Elals mbëri fa nekkoon ku ci nekk ci ab nga jógee ba nga fay dem yoroo dara amoo sax cent mille mat nga dem président écrit bi téye la ànd ak yow ngay soox di góorgóorlu jóg ko daan ba nga dem ca kaw nga faw xa écrit bi keroog mbëri ñoo ne ci kanam président écrit ñoom mujjee dugg te ñoom ñoo yor écrit waaye nag waroon ñu naqari xam mu tax doom ju nekk ba sa jur doom di ko gën bàyyi bu nekk seen doomam gën ko boo tàggatee nit ki ba tey président nga woote yow nekk ci ginnaaw moom nekk ci kanam mën ngaa a mer waaye mën ngaa a sant a ñu bàyyi xel ne ñoom président école yi école yi ñii ay mbër lañu woon ñii ay amateur lañu woon ñii ay dañoo ci seen ay école seen xaalis di def di ba kat kii kii yenn am fulla munoo nekk yore mbër mbër mi nga mu nekk ci kaw bu la mbër bi rombee du la nuyu ba pare naan maa yor mbër maa yor mbër mi amul njariñ ñun keroog làmb lañ fa demoon suñu ay écrit lañ fa demaloon maa ngi dégg nag ñu bëri di wax mais képp ku wax rek na nga xam ne yow da nga foogoon ne la fa am du am moo tax demoo wala bokk yow yaa yor sam bañ bopp bañ nag feebar la. comprendre maanaam ñi demul ba pare génn di tarar di wax waaw ku ci mel ni waa jooju noonu mooy journaliste géwél boobu noonu di wax rek bur géwél bur géwél lan lay wax ban réew ci àdduna bi la ay sportif di toog am ci kuréel gu nu soqi ko président de la république bi soxla leen woo leen biir palem mbëri na ñoom demuñu ñun ban réew lañ nekk Sénégal tollul foofu. mais man su ma nekkoon chef d'opposition su ma président wooyee damaa damaa damay wuyu moom wax dëgg yàlla def analyse ñi respecté moom ñi dem bu fekkee ne ay. Samba Sugum Gueye lañ moom lan la moom moom lamba lan la ci jariñ mais si mais ñi dem ñoo gën ñi demul président comme moo nga dem yaa gën ki moo te demoo man loolu laa gëm mais est-ce sañ naa taxaw di ko wax kenn soo ñëwee ne ma ñàkk jom moo tax nguy président ma da ngaa ñàkk jom moo tax numéro un Macky mooy chef mooy chef chef d'état nekk di yëngu ci la ngay yëngu ba moom mu xàmme la yow jàppal na star nga non xam lu fi am. bañ moo fi am mais nee la président de la république ku mu jox nga jël bu joxee xalifa général mu jël xalifa général lañu gën fukki junni yoon bu joxee imam mu jël ndax xam loola la yàlla mooy seet ku ko neex mu fal te boo bañee président bañ nga yàlla ndax yàlla moo jël ci leeram ak ci dooleem dénk ko borom jox leen ko te saa yu ko neexee la koy nangu nag képp ku mu xeexal da lay duma président ndax yàllaa ko dooleel bu Sénégal àndoon di ñaanal yàlla Bill Gates pour mu dee wala ñu koy ñaanal euh, président euh, Russie bi pour mu dee mënuñ ci moom tous parce que yàlla moo jël doole bi ëpp ci nguur teg ko ci loxo Russie ak Amérique maa ngi fàttaliku bi ñuy jàng Ariane Sharon daan nañu wàcc ay kaamil 2004 naan dañ koy ñaanal pour mu dee quoi ndax dafa sonal waa Israël waa Palestine suñu benn magum daara ñëw nañu yéen a ñàkk fayda ñu waa làmb suñu ñàkk fayda moo tax suñu arène nationale bi chaque fois ay nit ñëw di waa làmb jabalise mbër yi yi bañ jàpp Macky Sall moom arène nationale bi or que Macky Sall fi la ko fekk te fi la koy bàyyi keneen ku ñëw fi koy bàyyi imagine arène boo xamante ne nii dañ la koo jox même bu la ko mayee ñu naan don la don la don la don la même bu nekkee don ku fi indi don bi. d'accord mais arène bi arène bi est-ce que est est man bu ma amoon bu ma nekkoon place wax li may njëkk wax mooy président na jël arène bi teg ko déedéet xool ku jub mu nekk directeur parce que mbir day am directeur. pour pourtant Macky la bëggoon na dégg loolu te wax na ko fa mais kenn wax ko mais mu ma ko wax ndax stade bu amoon dëtt tey dinañ mën di ko ay aménagement bu ñu paree ñu bale jël ay employé stade bi suñu paree defar ci kaw su fa dara yàqoo ñu defar ko entretien ndax stade bu ñu la jox deux mille dix huit stade boo am trente cinq ans bëri yi nga xam ne amuñu kii mën nañ fay am même bu dee benn salaire bu mini dama ne booy taxawaalu foofu bu ñu ci jël ngay bale buñ stade paree sénégalais liggéey la bëgg mais dañu amul fu ñu jàpp réew moo xamante ne da ngay romb ay nit ñuy gas fonce ne la foo dëkk ne ci biir dëkk bi dëkk réew moom bëgg nañ liggéey buñ ko amee ni ñu koy téye la ñu xamul mais tey stade bii nga xamante ne nii Afrique yëpp amu fi président na nee na Sine seen président bi réalisation yu bëri la def fii mais bi mu ñëwee Sénégal fan la ne nañ ko fa yóbbu si stade bi lañ ko yóbbu kon stade bi bëgg na ko bëgg na stade bi yaa ngi may dégg. léegi nag naka la mën a bëggee stade bi bëgg bu toll noonu ba pare ba pare ñun ñu bañ stade bi bañ gi ko bañ ma ñun ñu ko defaral ñu ñoo xullee ba bañ ko lépp ndax suñu ñàkk fayda benn monde bu ndaw ñoo toog fee matuñu 1 pour cent bëgg coloniser plus de 4000 licenciés na ci làmb ak ñi leen wër duñ ko nangu maa ngi dégg benn mbër bu dëkk parcelle xalaatam lay wax nañ ko bàyyi wax lu ko neex ndax moom kuy woddoo làmmeñ soo noppee rafle moom làmb li ko ci tax a siiw du ay victoire du dara mais dafa ñëw ci làmb indi communication li ko naqar nag ba saa yoo waxee di dal ci kaw état mais képp ku dal ci kaw mag Sall boo paree kii rey ndaw ñi ba pare du leen dekkal waxal ci moom. Sénégal nga fekk koo xamante ne nii tekkiwul dara di xas ki tekki dara yow nga ñëw di jàppale kii xastaate soo wéetee moom looy wax. point de vue rek mais ne. boo tax ñu koy tontu. dañ koy gën a siiwal rek mais man li ma gëm mooy. ku wuy ji président yaa ngi wuy ku gën a ñàkk fayda président ndax yaa ngi am combat di gërëm ay nit ñoo xamante ne nii man lijjanti moo ñooña est ce que war naa taxaw xas la yaa ngi leen di ku nekk ka lay dimbali kooku waxal ñun président daf ñuy dimbali xam nga lañ dimbalee fekk naa trois présidents mosuma fekkee fu ñuy fondement stade waxuma la arène nationale moom moo ko def lan lañ njëkk wax ba ñu xoolee xool xamuñu ne dañ ñu koo may waaw bu ñu ko mayee dañoo xëy xëy rek may ñu ko xam nga lan mooy don nañ dem jàngi lan ba ba baatu don mooy lan Sénégal daf cee participé ñu participé c'est mais bu ñu ko mayee xanaa ñu war ko sàmm amoo lal boo tëdd ñu may rab lal nga naan dañ ma ko may dama ko yàq ko war a fonk ñaata at la ñu jooy na man xale laa 2004 maa ngi am 22 ans dama demoon ah bokkoon te délégation yi ñu bun eh, ci Abdoulaye Wade rien que pour bëgg am arène nationale ba 2012 gis ñu ko yàlla def doomu Ablaye wa doomu doomu Ablaye moo mi Macky Sall mais lu ay soxor soxor soxor na xam ne làmb ji yàlla yàlla li mu tombel Macky Sall la ko tombel noo jàngatee absence su la na ma ko gëm ku la Ama Baldé ku dëggu la na ko nit ñi respecté bu ñu jàpp ne Ama mbër rek ni nii nii kese quoi man faralu ma ko du sama mbër du sama mais man Ama boo Siteu gis ñoom ay affaire xamante ne nii loolu lañ mel parce que noonu lañu mel nit na da nga koy nangul fi mu gëm nit mënul ñàkk am fu mu bokk mais néew ma la ko teree ñëw bañ Macky Sall la parce que Macky Sall ku mu woo nga wuy ko parce que Ama Baldé papaam dafa def lu bëree bëri Sénégal nett li ko ñu ñu di ko dégg suñuy papa nett li ko di ko dégg ba ci euh, man parti socialiste laa gëm sama famille fa lañ bokk mais soo di parti dañuy dañuy dégg ñu ne moom daf ci doon bëree di ko ci participer ñu koy liggéey kon Falaye Baldé jur na doomam Ama Baldé Ama Baldé am na droit am position nëbbul position am ne nañ ko ko pour lan nag bu nit féetee ci côté bee ñu ne wéy moo gën bu nit féetee fee moo tekkiwul loolu moo nar a xar Sénégal ñaar. mais est bi bientôt mi ngi ñëw te adversaire am lépp mën na nekk Ama Baldé la li ma xam ci moom barki Serigne lu Mbacké nit ku dëggu la nit ku gor la ndaxte Zil Baldé mënul yar nit ku bon Zil bu la yaroon ni Zil Baldé mel ngay mel te man ñëpp xam ne man Zil Baldé idole la ci man ci làmb ji lu neex waaye nag na ko wax man Zil Baldé idole la ci man parce que maa ngi ko xam depuis 2000. di ko suivre di ko supporter ba mën a bëri sama mbër Ousa Sow mu daan ko Gris Bordeaux dugg ci géew bi beneen bi mu daanaat ko mu ñaar metti métti ma mais saa yi ma gisee du ma xool ne écurie Fass nga bokk Gris Bordeaux ba mu jëlee parole wax na la mu war a wax Cheikh Tidiane Niang na la mu war a wax Doudou Diagne Diécko wax a wax ña fa wax lu ñu war a wax xëy na dañoo juum man du ma xas kenn muy Sidi Diakhaté du ma ci xas kenn damaa ne ku jàkkaar la président Macky Sall mooy nit boo xamante ne nii boo ko bañee bu dee nit ku baax nga di ko bëgg ndax Sénégal day bañ da bañ loo nit te doo xam ba nga bañ ko te yow xamoo lan la kooku def dañuy jàppale si nit ba ñëpp bañ ko après bu dem moom lañ defal Abdoulaye Wade ba ñëpp bañ ko ñu pare naan rëccu nañ man du ma rëccu dara sama kaw ci àdduna man lépp lu ma def xool ba def ko du ma ko rëccu man loolu laa gëm dem nañ fa nag am na ay nit ñu ma gis ñu génn taxaw di kaas naan waaw seeni cent mille dañu koo maye ku mel ni bébé Saloum waxul dëgg man du ma dal ci kaw nit damaa fekke bi ñu demee ba ñu jox ñu képp koo xamante ne bëggoon jël bi ñu joxe dangaa ngaa génn demoo jëloo waaye nga taxaw ci blanc di xaar ñuy rappel par 10 10 1 million 10 10 1 million 10 personnes nekk 1 million ñuy rappel di rappel di rappel nañu wax dëgg gi yow nga toog pendant 35 minutes ñuy rappel rappel la ba ñu rappel la boo laaj 10 personnes jox la 1 million nga génn sa 1 million am ko amul nga man li ma jot li ma jox laa joxe te paquet la paquet bi ku nekk ki jël ci 100000 francs am kenn ko nañ dem ñu lijjanti nga yuux ko ne ko maire dama la jox li ma am toog xaalis bi maa ngi ji ne la bàyyi naa la yàlla ci kanam ñëpp ñëpp di gis nga jël sa xaalis tàllal ko ñëpp di ko ko sa poos nga génn taxaw ci télé yi ne dama koo maye même Bébé Saloum waxul dëgg maa ngi koy wax man mii maa ngi koy wax xoolal lii na jàll xamul ndax ñun nañ bëgg suñu réew nga contre nit mën nga contre ah mën nga contre nit ne kii li muy def neexuma waaye boo bëggee taxaw ku ànd ak moom nga xas ko ba li ñu traité de ay laas li ñu traité façon bu nekk man loolu duma ko nangu parce que dama bëgg nit ku nekk ñu respecté ko kim gëm xam nga nee naa la Ama ba li mu nekk loolu dama cee nangu 100 pour cent waaye nag ñun ñu jàpp dañu xas naan ñu demoon ay góor jigéen lañu duñu traité façon tur bu nekk loolu d'accord ma ko Macky Sall li mu mayee foofu dañ koy liggéey ci benn fan Macky Sall yóbbuñu président moo ñu yóbbu chef d'état moo ñu yóbbu bu nekkoon Ousmane Sonko dañuy dem amul kuy nekk président Sénégal ñu lay bañ bañ ko toll ni boo ñu woowee du la wuy wala ku la wuy ñu xas ko. même yéen chef d'opposition sax bu leen invité da moom tool waaye réew. Ousmane Sonko dañ koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ndax bu dul dara am na ay nit ñu ko bëgg mais ñu ko bëgg nañu xam ne bëgg ni taxul nga xas ki bëgg keneen man sama wax ci digg bi laa jaar bu ci dàgg dara ñi ñuy traité ay xaj di ñu traité ay lu nekk nañu xam ne ñi demoon ay acteurs lit lañu Gris Bordeaux lu nekk la def si làmb ba ñëpp xam ko Balla Gaye lu nekk la def si làmb ba ñëpp xam ko Modou Lo keneen keneen keneen keneen mais lan mooy ndeyi bàyyi ñu dem ñëw ay nit comme ñun ñoo xamante ne nii buñ boo tasee ñoo ci mbedd yaa leen may ñoo lay ñaan saraxawoo leen xam nañ sa liggéey amul benn parti Macky Sall boo xamante ne nii man xam naa ko wala may fréquente këram bay def naan euh, yàpp ku la mën ak xas ku la gën yaakaar na loolu moom du fi jóg tey Modou loolu yaakaar na yow mënoo ko fa jëlee man mënu ma fa jëlee keneen ak keneen noonu ndax yàlla suñu moo bindee at xam nga Sénégal la moo tax ma xibaat bi dafa am benn parti bu ñëpp ragal kuy wax ci ñoom da ngay saraxu man du ma saraxu napp kooku ñu napp nit ñi duñu tus moo tax waa làmb tey kenn ñi mul wax dëgg dangay gis ñoo xamante nii sax jàpp nañ ne bu ñu waxee ñoom am ay supporters wala ñoom ay nit duñ la ñooñ ñooñ di leen waxal tekkiwuñ dara Sénégal bi may ñaan nag di ko ñaan mooy Sénégal réew la ñun xamuñu beneen réew bu dul Sénégal waaye ndax dañuy toog ay nit nekk bitim réew guddeeg bëccëg di wax ay pièces yu taal ay kër jàmbur di def yàq ay alalu jàmbur di yàq ay palaasu jàmbur ñun ñu toog fii Sénégal état wu Sénégal bàyyi réew est-ce que France dina nungoo bàyyi benn français bu toog fii di taal France di wax te duñ ko jëli lan moo tax ay sénégalais nekk Amérique. Espagne ak Canada di wax luy taal suñu réew guddeeg bëccëg mel na ñun suñu réew mi dañoo nekk ci état wu guerre wala affaire affaire nangam li fi nekk waxtaan koy dindi li nekk Sénégal waxtaan moo koy dindi. benn point mooy yaakaar naa démb ki nga xam ne moom mooy Keba Kanté def na point de presse pour yaatal kii programme bi nga xam ne donc booba léegi mi ngi ko gëm di ko défendre ak yu mel noonu noo ko jàngate. non Keba Kanté moom man wax fa dëgg yàlla. ay waxam duma ci waaw ndax tamit fan yii passé wóolu nañu ñu fekk ko gudlet déedéet ñun waa Kër Massar écrit fi nekk wóolu nañ ñu dem fekk gudlet mu def benn conférence de presse parce que jàppoon na ne fédération lañ jëm mu ne nañ ko jàppale fédération lañ jëm woo écrit dajale leen bi mu leen wooyee la mu fa waxoon dara la ci defut digg nañ fi ay jakarta man d'accord naa moo ko digee digg na fi ay subvention ay gants ak ay boîte pharmacie d'accord naa waaye ba mu xamee ne fédération dématuñ boobu la ci gëj a wax bëgg a jiite CNG wala nga bëgg jiite dara dangay dem teg ko ci yoon bu jaar yoon kenn ku nekk nga nungul ko principe am mais bul wër di nax ay nit parce que ñun monde laa lit lutte parfois nit dañuy digg du ko def parce que bu ñuy dig xaalis lay teg onze ni bu ñu dikkee dem loolu laa ne man yóbbu moon ci Macky Sall li ma yóbbu woon ci Macky Sall xam nga mooy lan dem déglu la def la muy wax waaye li ma gën a yóbbu ci Macky Sall mooy arène nationale moo ma ko réalisé kon suñu woowee dañoo war a jóg chef de moom la damaa wax de mais Kéba Kanté ma fa dëgg yàlla man mi li muy def c'est des comédie quoi na bu bàyyi laam dem politique yàlla na ko yàlla defal jàmm ci woon politique mais ni muy wax man gëmuma ci dara parce que daf ma nax dafa ñëw fii wax ñu benn affaire booy ji bëri yëg ko kon kontaan ci moom mais malheureusement defu ko kon tamit dañu duñu mën ludul duñu mën rek la ma waxoon defu ko kon bu ñu waxatee duñu ko gëm waaw propos yi mu def ci président Bira Sène noo ko noo ko waaw xam nga loolu mooy li ma wax Sénégal ku jiite pour nga xam ne am nga njariñ ñu dal sa kaw dañuy bari mais boo jiitee kenn faalu la xamal ne li nga jiite amul njariñ te ku bëgg a nungu sa place dox ci lu baax loolu yàq Sénégal loolu laa nanguwul soo gisee ma waxee sàng wax bu metti dafa am ay parti yoo xamante ne nii boo duggee wax ci ñoom rek ñoo tey nga dee parce que ay saagaay fa lay fekk man faale ma ko ma saaga parce que Sénégal bu ñu demee saaga ay xalifa généraux di saaga saaga saaga fañul moo koy def mais ku kontaan du ko def man leen rek moo ma intéressé mooy Sénégal na am jàmm nit ñi war a xëy liggéey ñi war am am ñi war a ñàkk a ñàkk a am kenn mënu koo tere am boo gëmee loolu nag la la oto bu rafet sax am lu am lu envie loolu nag la la ay nit ñoo ñu diaboliser gëm loo ne ñëpp war nañu am ñëpp li ñu war a tolloo te loolu yàlla defu ko làmb ji Bira moo ko jiite day deex mu dem nam ko doxalee baax nag baaxut ki ko jiite boo toogee moom nga wax ko pourquoi bi ñu toogee fee ñi jëloon parole waxuñu ne Bira Sène li nga li nga jiite làmb neexuñu bu ñu ko waxoon foofa day yéen maanaam parce que foofu bu ma fa jëloon parole man dinaa wax loolu dinaa ne Bira Sène nii ak nii ak nii ma ko waaye nag nit ki dañuy xam ne yow boo jiitee sa kër sax parfois sa waa kër woo na la li nga doxalee kër gi neexu leen waxuñu maanaam am réew. képp ku bëgg sa sa nit ki nga faral su jiitee jiiteem neex nanga fexe ba yow kii falu nga wan ko lu rafet parce que tey bu ñu fal leen Macky Sall tey teg fi keneen kooka bi bu defee gouvernement keroog la am ay opposition ñu koy opposé wu ba keroog muy wàcc kon munul ñàkk waaye mu rafet mais bëgg jël ay nit ne ñi ñoo baax jël ay nit ne ñi ñoo bon moo waral saa sànga ma waxee ni ma waxee day waaye xam sama diggante yow moom xeex bu du jeex la te yaakaar naa a wax bëri na ndax xam waxtaana chef de bi ak yi ci xew waaye am na ay combat mag yoo xam ne amateur ñu ngi koy xaar diggante Gris Bordeaux Ama Baldé war na ñëw ak yeneen a yeneen diggante ay combat yu jànk yu safa safa saf ay espoir donc yooyu mënuñu ko ñàkk ba ñu waxtaane te yow sama diggante yow moom xeex bu du jeex la donc dama lay bàyyi nga tàggoog mbokk internet yi bu defee ñu joxe rendez waaw comme li ma wax rek euh, li may tëjee mooy di wax buur géwél na ko ci làmb nga bokk ci làmb la bokk ndax xam na ko waaye tamit nag na bàyyi di traité nit ñi yenn façon traitement yi am na baat bu ma boo xamante ne moo wax tontoo ko nii boo bañee dara ne dama ko bañ règlement de compte amul Sénégal boo ko fii dee jéemit du sotti li fi am mooy bokk maak yow position dinaa dinaa defee nii ba am lu may def ba bokk yow position waaye munoo fexe ba ñu bëgg Ousmane Sonko duñ ko bëgg munoo fexe ba ñu bëgg Macky Sall duñ ko bëgg munoo fexe ba tamit ñu bañ bëgg kon leen rek ngeen am pour ngeen dëkk na kenn ku nekk respecté soit bu dox digganteem ak moromam ñu bëgg Sénégal mu am solo bi ci topp mooy damay ñaanal kon ni ma ko defee di ñaanal mbër yëpp jàmm di fexe nuñ jubóowee ji nga làmb ji buñ jubóowoon syndicat bi ëpp doole Sénégal ñun ñoo ñoo ñoo koy moom parce que dafa yaatu mais malheureusement monde làmb boo koy boo ciy wax rek xaalis ngay teg boo koy tas xaalis ngay teg loo ci def xaalis ngay teg fekk ndëndi sajut duñu bokk luñu bëgg ñun loolu suñ problème mais ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanti réew mi di ko ñaanal président Macky Sall di ko ñaanal Ousmane Sonko di ko ñaanal Barthélémy Dias di wax waa Yewwi Askan mi tamit seen problème boobu yàlla nañ ko régler parce que opposition bu dëgër mooy doxal réew mais lu mu dëgër dëgër dëgër nañu xam ne réew boo ko bëggee jiite bu yàqoo doo ko mën a jiite boo yi xamul rek nag ñoo ci topp di wax mais ñi xam yàgg a xeexal politique xam nañ ne politique seen ay gaañ lañu te mbir moomu ci yàgg yàgg ci jàmm lay mujjee man boo gisee may waxee nee na ni maa ngi jéglu am na kàddu yu fi romb waxee nee am ay nit ñu napp Sénégal yi xamante ne nii xam ne am na ay nit ñu am fitni ne Sénégal quoi nekkul ne loola neex rek lañu ma def quoi maa ngi ñaanal ñëpp jàmm li ci li ci baax baax na li si bon tamit man man maa ko def waaw maa ngi maa ngi jégalu quoi. ok. jërë ngeen jëf mbokk internet di wax ne nguur moom ci loxo yàlla nekk yàlla mooy xool ku ko neex mu jox ko macha allah di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ndax loolu jàmm jàmm ko gën ndax ñax goo day lakk-lakkaale gu tooy nañ ñaan jàmm ci réew mi te di ko doxal te di ci dox di ci wax te xam ne buñ waxee ba réew mi tàkk yaakaar naa ñun ñëpp kenn ku nekk dinañ la andil jafe-jafe kon ñu yàlla na yàlla ci réew mi ak bitim réew macha allah jërë ngeen jëf